allahu akbar وحلل محلل وكبر وقام سائم وقام سائم وفي مثل هذا اليوم العظيم أخطر الله أكبر ما صليت التراويح وأداءت المساجد بالمصابيح وذكر الله بلسان عربي فصيح وتجنب السائمون في مثل هذا اليوم العظيم كل فيهم ذبيح الله أكبر ما عجب الفطر السوم وذهب يوم وأقبل يوم وأيقظ الله الغافلين من السنة والنوم وغفر اللهم الخدايا والذنوب وسبحانه حين تمسون وحين تسلمون وله الحمد في السماوات والارض واقيا وحين تسلمون ايها الناس ان يومكم هذا يوم عظيم ينبغي تجود اسم الليله وعيد الكريم تدليس متد وأهل لكم الطعام وحرم عليكم في الصيام يلا حرام انا تي ني اور واي سكل نجي نون ñu lekk وختم به سور حج بيت الله الحرام وختم به سهر مكرم وختم متلنا به ci bés bi السهر مكرم weer mu tedd bi weer yu mat na kan la ñu ko yàlla fay bi jaahi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam waaye nag wa fataha bihi suura xaja baytillahi alxaram ubbi nañu euh, weer yi aji mag ubbeeku na tey bu mu wëg bés bi yow mu tax si sa baal la gis ngeen ko ñëw doo def ay rakk di dangay sabbal yàlla wa tahmidi dangay sant yàlla wa tahlilin da nga koy tudd wa taazimin da nga koy màggal wa tamjidin da nga koy sab teral fa sabbihu rabbakum fii na ngeen sabbaal seen borom ci bés wa azimu na ngeen màggal bés wa tuubu ilayhi na ngeen dellu ci yàlla ba taxfiru na ngeen eh, jéggal. Yàlla taala wax na yàlla fi mu kama tanzil bi ci téeréem bi xereñ bi. istaghfiru rabbakum na ngeen jéggalu seen borom suma tuubu ilayhi bu ngeen jéggaloo ba pare na ngeen tuub bu ngeen ko defee yu ma tënku mata alxasana dina leen dundal dund bu baax bu teey bu baax ila ajari musamma ba ëllëg bu ngeen liggéey bu yuuti ku nekk di fàttali fàttaliwul kenn ku ne la nga waroon a yeew ay teraanga yàlla jox la foofa te foofu teraanga teraanga foofu la nekk waa la mun na nga yàlla xam an allah ka def te dara lakum haada diin te diine bi daal yàlla gërëm na ko amul keneen amul feneen am diine bu mel ni amul coono am na njariñ am na teraanga am na déggoo te amul benn coono ndax coono yi te waroon na yëpp yàlla teggal na waaye yéen a ngi bii dëgër nañu diine bi nañ ci jàpp bu baax ba leen gëstu ci leneen du ndox di nekk ci loxo ñeneen wala loolu yëpp bu ñu yitteel gannaaw bi ñu amee diine bi. wa tammaa bu ñu muslimina tuddee ne ñu gëm yàlla. bés bi nag war a dana wàcc al malaa'ikatul kiraam malaaka yu tedd yi dañu wàcc tey danañu wàcc fatu saabahu fatu saabahu dugg la kenn ku ne ci yéen dana malaaka yi dañuy ñëw saafonte ak yéen yóbbu ak yéen fii wàcc man saama waqaam ci ki nga xam ne taxawu nga woon weeru koor bi wor fa yaa saadata man ko bi la lahu maa ngi woo taxee ki nga xam ne yàlla nangul al koor ndax bu yàlla nangul war nangul nangul koor deseetoo dara ndax ëllëg yàlla moo lay fayal bopp teraanga du weesu ko. kon yaa am war ko ila taati rahmani alaamatul qubuli wa ridwan léegi nag def nañu ba natt li ñuy xamale nit ñi at mi na wala at yu lii la képp koo xam ni alaamatul qubul mandarga yi yàlla nangul na la. am am nga ridwaan ak ngërëmal yàlla loolu lépp loo xam ne bàyyi woon nga ci ay may ci bew da nga waaye nag dellu ci la nga bàyyi woon lépp te koor ta wax taxu na la ko bàyyi bi bés bi tey nga delloo ca loola loolu nag alaamat baax loolu day tekkal ne dañ laa dax wala dañ laa benn allah allah ah ba bis rek waa naka la ciy ragal yàlla bi ñuy wax ci lépp di ko wax ci aj di ko wax ci julli di ko wax ci asaga naka ja naka na ja an najaaxa wal karaama wal fawz wal falah naka na ja an najaat an najaax mooy mucc wal karaama ak kanaada wal fawz ak texe wal falah ak jam lépp nekk nag ci taqwa mooy garde nit moo koy servir moo koy may doole wa iyaakum suma iyaakum ak dagg wal xiyaan maa ngi leen di moytu loo di doon di moytu loo ñaar muy lan fen ak wor ndax ba jami u xayraati fi sirri wal amaan moo leen xeet jiw mu nekk ci dëgg ak wóor ndaxte bu fekkoon ne dëgg lañu wóor nañu procès bu ñuy jox day dox waaye bu ñu la ko joxee rek boo boo dëddoo da ngay seet nan nga ko lijjanti qaala taala ala wa anatullahi alkaadim suñu borom nee na ala déedéet ala lantulaay loo bëgg yàlla alal kaasi bi nekk na ci yéen fen daal kuy fenkat yàlla rëbb wa qaala aydan waxan inna allaha de laa yahdi kaydal xaa'in man yàlla de du ma jubal ku fexee war mu woo xelam ba dugg ci ci xiyaana yàlla du yàlla du ko def ba baadir bi bi ixraaji zakat dañu gaaw su génne addee bu affaire yi mujj ko nañ ci gaaw parce que xaw naa fàttali sax ci nga xam ne amoon nga ko te joxe woo ko nekk na ci yow bàkkaar sànqee na ko teg ko foofu joxe woo ko ñu ko war a jox te nga nga mënoon ko yow day nekk ci seen koor lënt lënt yi di nekk ay jëw yeeg lu baaxul yooyu yëpp nekk ci koor yàlla lu baax rek ma yegg ci moom boo taraxee mu dindi la loolu ba koor gi mën a jaar yoon ñaar mu am attaqué alal alal ja lay sàmm waaye attaqué mudd koor yow sa koor gi lay sàmm dindi ñaaw ñaaw yëpp ñu yëgal ko jëm ci suñu bu fii zakatul fitri na bala nga daf koor ci la yàlla wàcc ci aaya bi euh, parce que uhaali fuqaaw yaqaani da ngeen ko jox ñi ko yër yittewoo seeni bopp waaw naa bu ma ni tawlaa di ngeen tëral leen tey wëndeelu wala ñàkk نعم كيلو وفي تاخير القدير فيقاتل على على عن اليوم الاتيان وهي واجبة فردها رسول صلى الله عليه وسلم وسلم شهر رمضان nag معلق بين السماء والأرض لا ينفع إلا بذكرك nee na kenn ku ne da koo ràññee ci aj diggante asamaan ak suuf fee joxe wu aj wu ko boo ko joxee ñu ñu ñu falaat la war a wattabidu fi ixraajiha parce que xeexal bakkan joxe alal alal ak bakkan ñoo bokk al maalu wa nafsu sabi ay da ngay xeexal sa bakkan maanaam génn at mais nañ nga góorgóorlu bu baax te ko génn ko njaboot génneel ko misaan génneel ko suñu pays képp koo xam ne dépasse am ci yow da am na alal yow yaa ko génn wala tas pour bi mu di ñuy zamaan ah yàlla def na tey nag nit ki amul du ko mën a joxe waaye bu ko amee ëllëg wala suba wala ñuy dafa joxe léeg sax bu fekkee ne wóolu nga mën ngaa fay am nga loo fay danga dama ko jëkk wut na nga leet jox ak kaa koy lebal itam xam sa wóolu xam ne loo def loo wax danga ko def booba si la joxee buddu koor bi mooy jox ko wala mu wóolu si yàlla fu nangu seen waaw alxadis qaala alayhi salaatu wasalaam man saama ramadan wa daahu bi sittin min sawal daa fakka na ma sama tax képp koo xam ne di koor gi yéen noppee ba pare weer bi nga fexee ba teg ci juróom benn fan dafa mel ne yow di nga woor at bi waaw waaye nag fa man ata yow fa man ata allah yowmal iid fekk ana ma ataaf yowmal laxad yowmal bari yowmal wari nañu mot nañu mot nañu lekk nañu naan nañu sensé waaye bu kenn mooy yàlla képp koo xam ne mooy nga yàlla ci dëkk bi dafa mel ne bis àllaaxira nga mooy sa yàlla. آدم الله علينا وعلى كل خير والبر والبركة والصلاة والسلام والعافية ونيل البرام يحيي الشيء الصالح قبل الله منا وإياكم صيامنا وصيامكم كل عام وأنتم بخير آدم الله علينا بالخير والأمن والبركة والنجاح الجاي السلام عليكم ورحمة الله